gis nañ ne like for exemple Banjul fii ndaw yu bëri amuñ liggéey di whole of Banjul amul skill skill center understand so benn ndaw jog takkandi nga mu ne ah man de dama endeavor ma nekk meyo su ma nekkee meyo xale yi yëpp ndaw yëpp saanil ma so balaa moo xalaat problème yi jigéen yi o balaa moo xalaat problème i keneen problème yi ndaw yi la moo njëkk a xalaat donte ne sax am na jigéen yoo xam ne ay ndaw lañ